سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ñi nga am mbégte ak kontaan bu baax beneen yoon di ànd ak oustaz beneen yoon ba tey ci koor gi eh, bi nag ñuy waxtaanee lenn ci koor ak koor ci boppam ak nan lañ koy eh, yan mooy yi nga xamante ni moom lañuy war a jëf ci weer wi ak ay jëf yu baax yi nga xamante ni mooy li ci yokk ngëneel li ci yokk jullit ak yi nga xamante ni jullit war na ko moytu ci weeru koor moom daal moo ñu ci lu mu ci mën lu mu ñu ci waxtaana daal ñu doy loolu ñu ànd ak ustaas ci waxtaana ni ci koor ustaas ñu ngi leen nuyu di la wax dal ak jàmm ci Fajar Tijaaniya ma leen di fay di ñëwaat beneen yoon Fajar gis nga Ramadan hmm. xam nga بني الإسلام على خمس لا يرنتوا شهادة أن لا إله إلا الله بن وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة نعم وإيتاء الزكاة نت وصوم رمضان وحج البيت نار يو تلا نين تلا بكن وانا بكم جسنا جسنا نتي بونكي ñoo ëpp doole foofu di leen nga xam ne boo ci weddi weddi nga ñu ci des mhm. waaye xam nga gannaaw boo waxee ashhadu an laa ilaaha illallah iqaamu salaat daba jullit dafay julli mhm. jullit dafay julli Sénégal gii nga gis ñoo xam ne bu weer jotee ñu ut sajaada bu bees jënd kurus foo leen fekk ñu sax soccu di laaj laaj weeru koor du ne loolu rek la weeru koor daf lay fekk ngay jullit jullit la ci biir l'islam ci pra ci la pratique ci pratique l'islam ci biiram ci la weeru koor ñëw lu tax nga bañ ko yow jullit te nga ne jullit nga bi ci bakkan gën a bëgg bii la ci bakkan gën a bañ bi ci bakkan gën a bëgg mooy dem Makka dafa am tourisme dem ci réew moo mos a dem gis loo mos a gis dégg dem ñëw ñu soppi saw tur sax far dégg nga boo tuddoon nangam sax boo tuddoon alaaji sax fi nga tuddee bu demoon màkk ñu la ooyee alaaj sax boo demee màkk ñoom ñu naan la aas ci Sénégal kon jullit mooy or ramadan yonentu firi na ko mooy al imsaaku an shahwatay al batni wal farj loolu la ko fuqaha yi waxee taarif bi la al imsaaku mooy jàpp ci bànneexu bakkan bànneexu biir ak say pëy manam do lek do nan do sëy waye dafa am nak ay mesure yo xamne dañu ànd ak wéru koor fekk mesures yooyu remplir woo ko sa wéru koor danaka jaru ko moo tax yonentu wax ci benen hadith ne man lab lam qawl az-zuri wal amal bi fa laysa lillahi hajatun dega nga an yatruka taamahu wa sharabahu ko xamne wax ju ñaaw ak jëf lu bon ñàkk waxi caaxaan yi or di dam yi or créer grand place yi balut or dem place def sol short ne damay dàq koor lu koor lu ñuy dàq koor weeru koor li nga gis prix bi am ko ñu tuddee ko treizième mois administration fonction publique di fay douze mois privé am treizième mois mbaa téléphone bonus hmm. weeru koor bonus la bu ñu yàlla indi ci biir at mi ci douze mois yi yàlla na la indil na waxuma waxu waxu waxu waxu waxu ñaari weer de turu la amee waaye du weer ndax xam nga ne cinq heures lan moins vingt dañuy bàyyi lekk dix-neuf vingt ñu lekk loolu ñaata waxtu la bëriwul xam nga loolu rek la bëccëg bi lépp du bëccëg bi yëpp la waaye da dem ba dix ba ba cinq heures moins vingt 19 heures 20 timis jot nga lekk guddi gi lii fii nii ba 5 su ne yaa sa bopp ci lekk ak def lu la neex tam ànd ak tam dagan waaw bu fekkee loolu yëpp nag yow am nga ko te benn yoon la ci at te yàlla ne boo ci defee ngëneel ma soppi ko farata boo ci defee farata ma soppi ko juróom-ñaar fukki farata man yàlla su ñëwee damay tënk seytaane yëpp damay tëj buntu safara damay ubbi bal buntu aljanna bëri leen lu ngeen may ñaan aljanna yàlla lay wax de parce mm-hmm. que yonent ko wax bëri leen lu ngeen may balu bëri leen lu ngeen may ñaan aljanna di ma muslu ci safara dundaleel loo ci dundalee lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti ci weeru koor danaa ko def dundale goo xam ne dégg nga juróom-ñaar fukk multiplié par soixante-dix lay doon ci lu weeru koor te dundale gaa ngi dalee ci timis jot nga jox nit ben guuxu ndox bu sedd wala ben xarit tan ba ko yonent waxe daf ne ku dagal ko or da nga am lu mel ni bisam bi te do du wañu dara ci bisam bi saaba dañ ko tontu ne ko laysa kullu naa yajudu maa ngi saam saim yon tontu le ne yuti allah hadha sawaba man fatara saiman ala sharbati ma'in aw shiqqi tamratin aw mazghati laban guuxu soow njar wala kaasab ndox wala genn wàllu tàndarma loolu ak a yomb fi mu ne bu ko boolee nga ooroon nag yow te itam weeru koor rek la yonent wax ne jullit am na ci ñaari mbégte le saa imi farxataani nga ne ko ban ak ban la mu ne bu dog jotee ba mu ba mu dog dafay wax alhamdulilahi rabbil alamina allahuma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ba pare dal di ne euh, mar mi dem na la wabtallatil uruq dhahaba al atash wabtallatil uruq ñaanal yàlla foofu loo bëgg sax ci boo boo weer buñ ñu allah akbar timis ngay dog boo dogee ba pare ñaanal yàlla ci barab bi nangu ñaan yi ci la bokk kontaan nga parce que def nga lu la yàlla sant ak nag mu ne beneen beneen bi ñu ne ko beneen bi mu ne boo taseeg sa borom da nga xam ne gannaaw yow sa waar booyut da nga xam ne waaru yàlla ay moom itam du booy am na ci aljanna inna fil ci baaban dégg nga yonentu na ne ci aljanna am na ci bunt boo xam ne baabu rayyaan la tudd kenn du fa jaar bis penc yi yàlla dafay oote ci bis ba ne ana orkat yi ñu jóg taxaw mu ne jaar leen ci baabu rayaan ngeen dugg aljanna xam nga kon koor lu rëy la waaye moo tax itam mooy jaamu yàlla gi nga xam ne ci ngay xamee naa feq fi ne nii ñu ngi nii ci Kaolack tey bu mu di jotoon suba wala une heure boo demee marché Kaolack da ngay foog ne newuñ ci weeru koor boole ak yaa ngi tàgge géeyu attaay yaa ngi tege wax yu soof yaa ngi ci mbedd mi dégg nga bu ñëpp de minorité lañ waaye dañuy tuddee seeni boppi jullit xam nga nag li yées ci yoomi yàlla li yées ci yàlla bu nekk mooy yàlla santaane nga ne ko maa bañ ولا الإسلام ميلي كي نيخ رك لاي گم واي لي تي اندك تونو بكان دو مكو گم يالا نان تي القران افا تومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كما لم تتك فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي واو في الحياة الدنيا تروح تاند رك دانكو اب تي ادنا اك الك لاي خار تي الله خير الاسلام لب راني گم بو گمي لي ود لي موي ود nga lepp lo ci weddi rek weddi nga li ci dess lepp moo tax koor yonentu daan wax ne nañ ci nit ñi fooglu daan wax waa këram ne leen fooglu leen weeru koor takkaayu leen yéen ñëpp ngeen fagaru li nga mooy yàlla ci at mi yëpp ak li nga def nu naqare yàlla te kenn ci ñun mucc ci mooy yàlla wala nga def nu naqare yàlla benn bis boo oor rek mën naa kaafara loolu yëpp ramadaanu ila ramadaana mukaffiratun li ma baynahunna ida jtunibatil kabair weeru koor ba weeru koor yàlla dafay éponger bagage du fi nekkoon yëpp ci ay bakkaar su fekkee moytandiku nga bakkaar yu mag yi ay rey bakkan ak nangam ak nangam ak nangam ak yooyu moytandiku leen dégg nga yàlla dafay éponger la fi nekkee waaw weer wu mel noonu ñëw dara jotut la nga dem ci docteur ne ko bindal ma ordonnance damaa amee sama ma amee hypotension damaa amee ulcère damaa amee dama dama damaa ñii damaa damaa amee dama mu ne ne dama koo amee amee sa ordonnance wala nga tëju sa néeg di lekk boo génnee naa nag te gis nga koor yàlla nga ci def secret boo xam ne gis nga boo fi nekkoon nit ku oor ba timis jot boo bàyyee sa xel ci moom rek da nga gis ne du ñëmee lekk ndax dafay foog ne yow xam nga ne oorut bañ a lekk nit ñu oor yi lekkee ñu ne ko yow loo mel ni loo def nii te yow te yow moo tax moom ci boppam sax ndab lu ngeen sukk mooy jëkk a jóg dégg dafay am taanibu damir conscience am daf koy yedd te noonu ko conscience am dee dee ci àddina rëccu ko ci àllaaxira ku ëpp yàlla ñu ci yàlla musal weeru koor a ngoog weeru alquran la ci la alquran wàcc weeru tabe la dimbalante la weeru jaamu yàlla la weeru dundule la bàyyi daf ñu daan wax ne yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam li muy tabe tabe ci weeru koor daan gën a tabe jëmmi tabe ju doon dox la waaye bu weeru koor jotaan dafay mel ni cal weer lu riddi ci suuf su nooy nepp dama koy yëkkatee noonu la yonent bi mel ci joxe lu ñëw ci loxoom mu joxe ko ñi am wiraasa ci moom yëpp noonu lañ mel ci weeru koor boo duggee ci jumaa ji da nga gis nit ñoo xam ne ñu ngi dañuy joxe rek ku leen nuyoo rek ñu jox la bu jox jotee nit ñëpp dañuy rëj rëjuloo pour defar ay ndogu ci seen kër yi indi ko ci jumaa ji ngir jàmm yàlla benn jaamu yàlla mos ci benn tàndarma rek wala benn guuxu kafe yàlla ba sippilé la ci say bàkkaar loolu ëpp naa xeeb te yaa boole yaa ngi or teg ci eh, kon ñun weer woowu teru nañ ci ñun weeru mbégte la bàyyi ñes daf daan def bu ñuy gungee weer wi yow mu sabaa shirin ñaar fukki fan ak juróom-ñaar buñ li waa Sénégal tuddee laylatul qadri daf daan dox ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun soppe baa ngi tàggoo xam nga inna lillahi wa inna soppe baa ngi tàggoo koor ci ñoom soppe la mm-hmm. or bàyyi mu ne am na ñaari xaaj am na oore am am na oore xaas am na oore xaasi xaas oore am moom mooy ku bàyyi lekk ak naan ak sëy waaye ci des daanaka yaa ngi koy def xam nga loolu ñu bëri nga koy def oori xaas mooy koo xam ne ah, ah, bàyyi na yooyu ba pare waaye bàyyi na ñaawteef fii sax teg ci oori xaasi xaas nag seeni borom ñoom bu seen xel dajee lu dul yàlla ci bëccëgu koor rek ñu ne juubu nañ manam dog lañ ñoom seen xol yëpp dañ koy aj ci yàlla waaw dara ñu jàpp ne sax li ñu nekk nii dégg nga lu ànd ak métitu bakkan la bàyyi ñes radiallahu anhu ci biir wayam yi wax na moom ne xawaaniyal mën naanu fi l asfaari fa lastu axtaaju ila l iftaari man gaman yàlla dimbali na ma man ba ci tukki lu tukki métti métti métti maanaam bi su tey bii tey di talaata ci kaw la nga xam ne température bi tey dem na ba nga xam ne daanaka nit ñu foogoon nañ ne jaww ji dana tàkk ci tàngoor xataa bu melee noonu sax mu ne moom yàlla jox na ko yàlla la wax nag ne jox na ma kattanal man du ma dog ci koor xataa su ma nekkee ci tukki sax man soxlaw ma dog eh ñaan ko yàlla rek la nag ba yàlla may ko ko loolu lu ñuy judduwaale góorgóorlu rek bëgg yàlla di fuglu ci ndigali yàlla yi dégg nga ak ak tereem yi ak di jegeñ lu yàlla ak di bëgg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ni mu daan jaamoo yàlla di ko roy ci lépp ba àgg ci maqaamaam boo du ab yonent ci dem nga ba doon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay jikko yoo xam ne wax dëgg yàlla na mu ko daan defee noonu nga koy defee la ci la ko yàlla mayee kon weeru koor teru na di weeru barke ku ci am ko lay liggéeyal yonent mu ne na ko oyofalal liggéey ci moom hmm. eh, ni ku ne ci ñun na fexe bu mu lekk moom kenn na lekk na lele na na na nandale wax dëgg yàlla na dimbalante na jaamu yàlla boo xam ne tey boo ko joxoon ñaar téeméer sax dana baax ci moom da koy boo këram mën na koo dimbalante moom ak ci njabootam lekk ci weeru koor te moom ameewu ko bu boobaa yaa ngi liggéeyal yàlla ci biir njabootam wax dëgg yàlla loolu xeebut ci yàlla eh, weeru koor teru na ñun ñëpp um nañ yàlla rek la ñuy nag oral luñ keneen bañ déggee ne feeñ na ñun ñëpp bañ dégg bañ ko séentoo gisuñ ko ba démb muy fanweeri fan laajtew sax ñu nit gis na weer rek gisut ko dañoo xam ne rek weer fanweeri fan ak benn ci lislaam amut mm-hmm. ñu xëy um nañ naafile nañ biig um nañ te or dog nañ ci sept heures euh, trente eh, ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole ci xaaj ba koy oor déwén mm-hmm. lépp luñ ci def yàlla nañu ko yàlla nangul mm-hmm. yaa rabbi yàlla yàlla ci suñuy bakkaar yépp suñuy jëf yu baax lu néew néew néew néew yàlla ñu ko yàlla nangul te fulal ñu ko ci kem mbaaxam gi moom yàlla yàlla ñu yàlla dimbale ci biir lislaam yàlla ñu yàlla def ñu dimbale lislaam yàlla def lislaam muy suñu dimbal mm-hmm. yaa rabbi yàlla yàlla bu ñuy jaami leneen yàlla ñuy jaami yàlla rek mm-hmm. yaa rabbi yàlla suñu réew yàlla na ko yàlla def muy réewu jàmm yaa rabbi yàlla yàlla ñu yàlla defal jàmm ji ñu xam ne jàmm la ci suñu réew yàlla ñu yàlla wattu suñu réew yàlla yàlla wattu ñi nga xam ne ñoo ci bopp réew mi yal na yàlla dimbale leen ba li réew mi yaakaar am ci ñoom ñu joxe ko yal na yàlla def loolu yàlla ci barke yonent yàlla na yàlla wattu kilifaay diine yi yal na yàlla wattu kilifaay na yàlla suñu xalifa Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu coow am na fa ci fan yi eh, waaye man baat ba ma ca waxoon baat bi ma ciy wax rek mooy eh, suñu ne nit dee na dee du njombe bàyyi daf daan wax ne radiallahu anhu ida kaanat il aqdaaru min malikil mulki fa siyaani indi maa ma maa yu sirru maa yubki fekkee dogal ci loxo yàlla lay bàyyeekoo te ci loxo yàlla rek la mën a bàyyeekoo man lu neex le lu naqari laa emale dégg nga ku bëggut a dajeeg yàlla yàlla du bëgg a dajeeg yow waaye ku bëgg a dajeeg yàlla yàlla dina bëgg a dajeeg yow ñun loolu du suñu problème seulement nag duñ kenn nag nattu muy dal ci sa kaw wax dëgg yàlla loolu ko defit ñun dañu lay bàyyeeg yàlla rek sa éene yàlla fay la ñu ngi ñaan yàlla sëriñ bi yàlla na ko yàlla may wér yàggal ko suñu kanam mu ànd ak sagoom yàlla na yàlla dafa loolu suñu imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Aliou Cissé yàlla ko yàlla yàggal suñu kanam moom it ci ci pays bi mooy taxawee jumaa ji jàngale hadis ci jumaa ji dégg nga ba di toppatoo jaami yàlla yi yàlla ko yàlla defal loolu yàlla na ko yàlla defal Cheikh Mahi mi nga xam ne moo am moo amee firim alquran bi fii ci bayal bi ci weeru koor ko te ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla yàlla na yàlla wattu ñu ci waaw ñoom ñi koy def ñoo uutu ñi ko defut ñun ñëpp yàlla nañu yàlla boole wattu dimbaleel ñu boppam amale awale ñu ci yoon yi nga xam ne moom la bëgg te moom la gërëm yaa rabbi yàlla may ñu ngërmandeem may ñu maam boole ñu ci jaam yi nga xam ne merewut leen te bàyyiwul leen ju sanku te yàlla nañu yàlla boole ci mbooloom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroogee yàlla bokk ci mbooloom Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mi nga xam ne ci mbooloom yoonu yonent yàlla muhammad la ñu bokk yàlla ñu yàlla may rammum mm. suñu sëriñ mm. yaa rabbi yàlla moom it yàlla ko yàlla may rammum yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy texe ci àdduna mm. texe ci àdduna yàlla ñu yàlla may fan yu gudd yu ànd ak wér yàlla ñu yàlla yombalal dund ak dëkkuwaay ak waruwaay yaa rabbi yàlla koor gi yàlla ñu ko oor ci wér ak ci tal ak ci jàmm yaa rabbi yàlla ak sax ci ay dépasse yàlla ñu yàlla defal loolu amin wasalaamaaleykum wa rahmatullah Thank you.